débat régional nag dañuy waxtaanee leneen muy mbas mi xam ngeen ne diwaanu Thiès euh, région bu Thiès sax la ñuy wax daanaka moom mooy euh, ñaareelu euh, dëkk après Dakar ci lim bu am solo boobu mu am ba tax na nag commune rurale yi fa nekk dugal nañ seen loxo ci xeex bi li ko dalee ñaaxeen ba wër juróom-benn fukk ak ñetti gox yu fasantikoo yi ko seq ñoom ñëpp nee ñu dañuy dugal seen loxo ci mbas mi waxtaan ak askan wi dugg ci tool yi waaye itam dugg ci mbooy gi wax leen mbas mi ak la mu mën indi ci ay loraange ca diwaanu Thiès kaay Cheikh Anta ak Sey Latif la ñu fay fekk. ngi fii ci ñaaxeen di ab commune rurale bu dajale juróom benn fukki dëkk ak ñett ay ndaw ak ñi nga xamante ñi yeewoo fii ci dëkk bi nekk fi ay kilifa jógoon nag doon ñaax askan wi lu jëm ci wàllu mbas mi nga xamante ni jamono yi mooy lëmbe réew mi di leen gën ñaax ci li nga xam ne taxaw nañ ko bien avant taxawaat ko tey lépp loo xam ne ñu ngi koy indil askan wi ñu ngi indi fii ay masque indi ay lu ñuy raxasoo muy ci wàllu saabu muy ci ay gel ak ay satala ak ay paan jëmale ko ci école yi ngir euh, taxawu leen mais surtout si jëmale ko ci jigéen ñi ndax jigéen ñi ñoo nekk ci kër yi ñoo nekk ci activité économique yi je pense que mën bu ñu leen utiliser mën nañu am lu bëri ci xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex jëmale ci feebar bi. ñu gis ne mbas mi de du ci dëkk taax yi rek la laal waaye nag fii nga xamante ne moom mooy département bu Tivaouane mbas mi de dugg na fii. ci gox bi euh, chiffres yi joxewul de cas cas yu bëri mais euh, feebar bi mu ngi fii euh, donc war nañu gën a mën a. ñaax population bi ñu gën a jël ay matuwaay. Mor Sylla responsable parti socialiste fii ci diwaan bi gis ne xeex bi de waruñu cee dellu ginnaaw ba tax ne mu jóg ànd ak askan wi ak sous-préfet bu ñaaxeen ngir gën a tàggat ndaw ñi ci wàllu mbas mi. li ko daggee ci li Ndramane sanc ci la Mérina Asse jàpp xawlu Ndemeen Bëkkër ale daanaka école yi nga xamante ni ñu ngi foofeet kenn fàttewu leen dugal nañ fa ay jumtukaay yi waxtaan ak jàngalekat yi ngir ñu gën a ñaax élèves yi ci jàngoro ji di coronavirus. dañu taamu école yi parce que ku nekk xam na ne école yi ndaw yi fa nekk ñoom lañu ñu war a njëkk a sàmm ndax ñoo jóg ci école yi di dem ci kër yi di fekk seen jur yi kon képp ko sàmm sa ndaw sàmm nga sa ëllëg sàmm nga sa réew. kii di sous préfet bu ñaaxin na nag mbir mi warul yam rek ci taax yi ndaxte jamono yi de jàngoro ji dugg na fu nekk rawatina fii ci département bu Tivaouane mi ngi béral ne arrondissement ñaaxin bi daanaka ñëpp war a dugg ci xeex bi ci diggante Mbayeen Ngandiouf jàpp ci Maxambaakol te nag nee na fexe nag ba commune rurale yëpp jóg ngir gën a ñaax askan wi ci jàngoro ji moom de loole nee na lu ko yitteel la. ñaaxeen mu ngi ci deux cent quatre vingt mu ngi ci waa mën nañ ne ñetti téeméer yu manqué benn commune Niakhène mu ngi ci 63 villages waaw 63 village arrondissement mu ngi ci 299 tey ñu ngi ci ñeenti commune muy commune Ngagne Diouf Thilmakha ak Mbayeen ñoom ñoo ko constitué moo tax tey ñuy rafetlu trop lii nga xam ne monsieur Mor Sylla indi na ko ak ñi nga xam ne ñoom lay liggéeyandool ci wàllu politique ñu jël ko dajale li nga xam ne am nañ ko si ay moyen indi ko jëmale ko ci askan bi nga xam ne moo nekk ci arrondissement Niakhène ñu leen ci remercier di leen euh, féliciter parce que def nañ taxawaayu citoyen def nañ taxawaayu euh, acteur du développement parce que feebar bi dafa anéantir vraiment développement bi nga xam ne entamé woon nañ ko ci ñaari at yi nga xam ne ci la ñu nekk. ñu jàpp na nag fii ci diwaanu Thiès jàngoro ji jéggi na daya lool ba tax nag kilifa yi amaloon ab couvre boobee ba léegi de benn yëngu-yëngu amu fi rawatina fii ci arrondissement Niakhène ñu gis ni tekkes de marché hebdomadaire bu mag a fi am waaye nag dogal yi nga xamante ni kilifa yi jël nañ ko tax na marché luuma yooyu yëpp la ñu dakkal luuma yi dañ ko dakkal may mun a xam na ci dara semaine passée ma ngi la dégg ngay def benn reportage fii ci luuma àllarba bi am ci booru Saam. Mm. ña fa nekk sax ci boor boobu ñoom bi ñu gisee ñeneen ñi ñëw dañoo daal di gaaw ga artu ji kon mu mel ni euh, décision la boo xam ne kilifa yi kafe wuñ ko. kafe wuñ ko te tamit euh, ça s'explique aussi. Mm-hmm. ndax feebar bi moo demee noonu Thiès euh, naka noonu. Mm-hmm. luuma yi tamit nit ñi dañ fay dajaloo. mais mm-hmm. li ñu gis rek mooy ba léegi nit ñaa ngi laal ci wet gi. chaque jour sax léegi dañuy jéem di lal di euh, di laal yi mhm. affaire yi tamit risque la mhm. comme nee nañ dogal euh, jig na mhm. nee dañ ko aaye pour man euh, nañ xool xool beneen système bu ñuy jaayee peut seen marché bi dina dina metti mais quand ñu bañ ku rëq seen ndigg rek. Mm. waaw gars de fi mu ne nii moom dafa mel ni jël nañ ci ay euh, ay matukaay yu am solo euh, fële ci diwaanu euh, Mboro Cheikh Anta Diop diwaanu Thiès ñaaxeen ngeen baal ma Cheikh ñu gis li jëm ci wàllum sensibilisation bi Mortala ñoom commune rurale yi sax ñoom it dugg nañ ci kon mu mel ne relâchement bi ñu doon wax dafa général sànq rek ñu ngi wax benn étude bu ñu def ne les Sénégalais wala boog la plupart ne s'intéressent plus coronavirus donc tamit dafay baax ñu gën a dooleelaat troupe yi. ñu dooleelaat xeex bi di mastawu également ñi nga xam ni dañu doon jariñu dan mm-hmm. doon yor seen i maanaam euh, ci mm. marché luuma yooyu lañ doon amee xaalis dañ doon daan seen doon daal seen doole ci marché luuma yooyu te mm-hmm. loolu mënatuñ koo def mm-hmm. mu nekk benn chômage technique boo xam ne dañ cee nekk ñooñu aussi di leen mastawu coono Euh, di wax ni vraiment waroon nañu seet également euh, jeexit bi mu am. ñi ngi def couvre-feu ñi mais ban jeexital la am ci maanaam xeex bi bu fekkee dañuy euh, dañuy def couvre bi xeex feebar bi di gën a jabaa jonge mhm. te xayma wuñu ni ñii ñu toogloo seen kër dañ leenoo danoo war a toog seen kër. Mhm. njariñ bi mu am ak xeex bi bu ñu daful lien bi. da nit ñi dañuy gën a sonn te dimbal bi mënuñoo jug rek bis bu ne ñu leen di dimbali di leen dimbali mm-hmm. ñooñu aussi bëgg nañu reprendre seen activité comme avant mm-hmm. je pense daal war nañu jéem a xayma waa ji mi ngi koy wax sax anthropologue bi daal ni Sénégal euh, joxatuñu gëdd bi xeex bi parce que mm-hmm. tout simplement ñi war a wax ci mbir mi dal moom la ñu gëmatul donc euh, yooyu yëpp jar nañu bàyyi ci xel xam ni daal askan wi fi mu ne nii am na ñoo xam ni euh, sonn nañ te seen sonn boobu. Euh, li leen ko yóbbee yëpp mooy euh, xeex mbas mi. te mhm. ñoom ànd nañ ci. Mhm. mais ànd nañ ci mais nag kañ la ñuy xayma ni. Mhm. Euh, toog leen seen kër boobu ak bu leen jaayee ci luuma yi. am na njariñ ci wàllu xeex. absolument parce que léegi laale na fépp de. bu domp mooy. la dernière localité bi nga xam ni. Mhm. mbas mi dugg na fa. dugg na fa waaw kon dafa mel ni liñ naan euh, dafa daj. Euh, Sénégal Cheikh Tidiane tey ci àllarba ji Sénégal mu ngi xaar se premières doses kon mhm. yaakaar mun na mun na mun na am foofu. waaw waaw am nañu ko bind de nee nañu daal war mhm. nañu réceptionné tey euh, xaw ma deux cent mille doses jógee Chine waaw mais tamit réceptionné ko tamit baax na mais. ña nga ko yéene tamit ñooñu tamit ñu nangu ko ñàkku tamit ça aussi c'est une autre histoire parce que problème bi yëpp foofu la xam nga yaa ngi wax ni euh, déni bi dafa am ba léegi mhm. na ñoo xamee ni dafa mel ni ñàkk bi sax la ñu gën a ragal ko feebar bi mhm. <laughs> te ce qui veut dire que pare ñu ne la ñu ne la yow personnellement kan nga xam ko <laughs> donc euh, y a gros travail de ce mhm. côté là à euh, mais tamit foog tamit ñu saytu ko comme ni ñu ko waxee xool ndax xam nga bu fàttali Afrique du Sud yóbbu woon nañ fa ay vaccin euh, ñu dem ba ci biir gis ni gis ni vaccin bi ndeke du waaja bon yëf yi daal mi ngi noonu mais aussi Mor tamit li mu wax aussi ci euh, niveau économique tamit euh, lu mat a bàyyi xel la parce que mhm. booba léegi dañoo jël ay nu mu ay décision de restriction mhm. tere ay nit ñu exercer seeni activité mhm. bon est-ce que def nañ xayma bi ci war xool ndax restriction yooyu ñu jël mhm. jur na wàññi na feebar bi apparemment bon ndakaaru buñ fi tàmbalee couvre bi ba léegi ak Thiès gëw ma ni feeñ na bu baax mais tamit soo tëjee nit ñi tamit euh, feebar bi tamit gën di def dégâts Euh, quelque part aussi y a y problème parce que ñi nga xam ne dañoo waroon liggéey di dundal seen njaboot euh, mënatuñ ko def euh, day day métti lool suñ ci mhm. boole tamit feebar bi à côté mhm. ça devient extrêmement difficile mhm. moo tax nag daal faw solution am kenn xamul fu muy jóge nag. Mhm. peut que vaccin yi lay doon. Mhm. mais je pense que askan wi soxla nañ ko bu askan wi soxla nañ ko en tout cas ñu ngi masawu comme ni ko Mor waxee ñëpp ñoo xam ne mbas mi daf leen a tere tey euh, ñu dem daani seen doole ku ne xam na euh, secteur informel bi ak itam ñi bootu ci gannaawam ni mu bëree bu nu jaajëfalee euh, Cheikh Anta Diop ak askanu ñaaxeen di nuyu waa Thiès kaay gépp benn dëkk ñaari gaar dëkku Mor Talla ñu dem ci société ànd ci ak Maymouna Ndiaye.